internet yi topp Télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission 2024 plus ni ngeen ko tàmmee am euh, du lundi au jeudi ci waxtu wii ñu am mbégte lool dellusiwaat ak yéen yaakaar na vous avez passé un excellent week-end di leen ñaanal une très très belle semaine am mbégte mu rëy nag euh, dalal fii tey docteur Cheikh Dieng muy président parti fépp Tawfekh nekk candidat euh, nekkoon candidat ci élection présidentielle bi bokk ci ñi ñu recalé pour parrainage bi mu bokk itam ci collectif pour la défense de l'inclusivité électorale et docteur Cheikh Dieng ñu ngi lay dalal jàmm ci Télé Sénégal di la nuyu euh, bismillah ci mais soxna Fatoumata maa lay nuyu maa lay bu baax a baax di am euh, plaisir euh, pour la première fois ma ñëw visiter vos nouveaux locaux. Télé Sénégal TV. mais di la di la ci féliciter di la ci féliciter et voilà je vois que c'est c'est très agréablement très joli. Et comme comme type d'aménagement Et, euh, et moi, je suis de ceux qui croient en l'entrepreneuriat. Vous avez fait vos preuves à Rewmi FM. foofu lañ doon faral di gisee mais moo tax ma bëgg laa féliciter féliciter et nuyu ziyaare bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ni nit ñi seetaan ci Télé Sénégal FTN. jërëjëf euh, docteur Cheikh Dieng fii nag salaar yéen a bar ak FTN fii Télé Sénégal la euh, Télé Sénégal TV euh, di aussi ñoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom ñu am mbégte dalal la fii Cheikh yow itam ñu lay gërëm tey ñaari Cheikh laa am sur le plateau hein ah loolu doy na waar <laughs> Cheikh ñu ngi lay gërëm di la dalal jàmm itam d'accord salaamaaleykum Fatou ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu invité donc di nuyu internet yi nga xamante ni ñu ngi seetaan vraiment voilà di am mbégte encore sa yaakaar na lépp lu ñu fi wax rek yàlla na doon ngëneel si ñun doon ko ngëneel si askan incha allah. Mhm. jërëjëf Cheikh alors euh, euh, foog naa ne docteur Cheikh Dieng fi ñuy tàmbalee mooy xibaar bi mujjee am euh, seen dem sànq ca. union européenne délégation bi fii toogal Sénégal ngeen dem fa en tant que euh, collectif pour la défense de l'inclusivité électorale et la démocratie ñu dégg ay déclaration yu mel ni euh, bu soxna Aminata Touré Bougane Gueye Dany yow itam nga def sànq ab mémo au nom de ce collectif la régie bu fekkente ni yemb na euh, ñu am document bi justement woon que ñi ñuy seetaan lu waraloon seeni tànk sànq ca délégation bu Union européenne fii ci Sénégal waaw tout à fait soxna bi conseil constitutionnel joxee ñu la clé USB bi nga xam ne moo contenir les motifs de des rejets dañ cee gis ay mbir yu doy waar yu doy doy waar donc ñi nga xam ne na leen nag donc ñu ci ñu ci bari en tout cas donc ñu di lii duñ ko bàyyi mu jàll euh, duñ ko bàyyi mu jàll ah dinañ waxtaan ak sénégalais yi pour leen mbir mi nu mu demee donc ñu def une première réunion def une deuxième réunion suivie de conférence de presse pour leeral sénégalais yi ni système bi nga xam ne moom la ñu contrôler parrainage bi wax fa dëgg yàlla da cee bari ay mbir yu day waar lool doy waar lool mu mel ni li nga xam ne ñenn ñi dañ ko doon njort depuis le départ ni parrainage bi dina nekk un système de sélection ñu am ci ay firnde ay firnde yu leer yoo xam ne dañoo woon ne lii teguwul ci dara. ngeen firnde ngeen am. Eh, donc euh, biñ paree conférence de presse bi ñu ne duñ ci yem ah dinañu parce que ginnaaw jàmm la ñuy dox suñu kuddu jàmm lay ràcc dinañ ci waxtaan ak ñu ñu ci war a waxtaanal ñëpp et c'est sur cette base que euh, donc ñu demoon tey euh, délégation de l'Union européenne ñu dalal ñu ñu waxtaan ak ñoom. dinañ ci toftal donc ambassade des États-Unis dinañ ci toftal yeneen partenaire au développement dinañ ci toftal société civile yi nga xam ne ñi ngi Sénégal dinañ ci toftal chef religieux yi nga xam ne ñu ngi Sénégal ku ci nekk ñu wan la firnde mooy mooy li ngay laaj mm-hmm. firnde lan mooy indi euh, invalidation parrainage yu bari mu mu mën koo tënk nag ci juróomi mbir ci juróomi mbir juróomi mbir yooyu ñoo nekkoon l'objet du mémorandum bi nga xam ne collectif bi moo ko defar cité ci cas yëpp peut-être cas yëpp sax nekkuñu ci wante yi ci ëpp solo benn ci bi ci njëkk nekk ñi nga xam ni eh, mooy le le plus extraordinaire dañoo yóbbu seen clé USB bi ñu bi ñu déposé seen parrainage boole ko ak les fiches physiques c'est important que les xam li xew clé USB boobu bi ñu demee déposé ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel ubbi ko liir ko liir clé bi wax leen ñaata parrainage moo nekk dans chaque région ñu ñu ni def nañ clé bi su sele dem leen ñu bàyyi fa clé bi ba pare la ca nekk ñu copier ko ci ordinateur conseil constitutionnel ba fa nekk bañ del see quatre cinq jours après ñu war leen contrôler ñun leen ah yéen kër seen format c'est pas lisible. kon inexploitable les clés sont inexploitables kon dem leen ñibbi. ah kon clé inexploitable yooyu njëkkoon nañ ko ubbi mu dox. ubbi nañ ko. d'accord boo gisee rapport bi bi bi nga doon wax sa mm, sa technicien mu ubbi ko. Mm-hmm. donc mën na ci génn benn exemple ñu wane rapport bi nga xam ni jox nañ ko candidat ne ko yow sa dans si sa li nga déposé parrainage région de Saint-Louis am nga fa tant de parrain Dakar am nga fa tant de parrain Diourbel tant de parrain et cetera ba nit de au total déposé nga tant de parrain alors kooku bu dellusee beneen yoon ñun ko sa ta clé n'est exploitable est-ce que c'est sa faute d'autant plus que moom caabeem que en fait la USB bi foofu foofu la ko bàyyi woon. te ba mu koy indi mi ngi dox. te ba mu koy indi mi ngi doon dox kooku dafa déposé woon ay parrainage sous forme physique mooy fiche yi nga xam ne dañ koy exposé xanaa à la limite kay même bu clé bi baaxul nga ko kon nañ dem nañ dem xool ci say fiche physique wante doo ko ni débarrasse le plancher bu mu insister nga woo genre gendarmerie pour ñu génn ko muy premier aspect deuxième aspect mu nekk nag li ci ëpp mooy ñu ne ñoo xam ni dañoo nekkul ci fichier électoral bi sama cas personnel moom laa gën a xam am na mille deux cent vingt parrainage yoo xam ne dama ko déposé ñu ne ma nekkul ci parrainage bi. te fichier bi. nekkul ci fichier électeurs yi. ci fichier électeurs yi bi ñu ma ko waxee donc ma jëlaat numéro yooyu bu ci nekk ma vérifier ko benn benn ci fichier élect élection bu deux mille dix neuf tenez-vous bien. 2019 mooy la dernière présidentielle. mooy dernière présidentielle. mille cent vingt parrains yooyu nekk ci fichier 2019 waaw ab parrainage mu ngi nekk ci fichier 2019 te nekk ci fichier 2023 xanaa fichier 2023 kay dafa war a gën a yokk. et foofu mooy am na li ci am na lu Touré di wooye le cas zéro ci la ku mel ni euh, Mohamed Boun Dionne bokk Boun Diop ci la ku mel ni Mary Teuw Niane bokk mm. yow ngay candidat déposer sa carte d'identité carte électeur au conseil constitutionnel dem ñu jox la sur cette base la fiche de parce que moom laa gën a xam mais tous les leaders ya fa nekk am nañu ay cas yu demee noonu hmm. mu am beneen mbir mu doy waar donc mu ni euh, dañuy vérifier dañuy jël le nom de la de, du parrain wala voilà son prénom def ko comme une clé de vérification alors que arrêté bi nga xam ni mooy euh, l' arrêté zéro 32 euh, cinq du ministre de l' intérieur bi organiser parrainage dafa ni li nga xam ni mooy la dat de pérention de la carte délecteur mooy critère bi nga xam ni ci la ñuy xoolee ndax parrainage bi valide na wala valide kon même su ma bindoon turu Fatou ña euh, Fatou Ngom ñaa Fatou Thiam Ngom Fatou Thiam Ngom <laughs> ma bind Fatou Ngom Thiam j'ai pas fait que parce que euh, euh, numéro électeur Fatou Ngom Thiam ak Fatou Thiam Ngom du benn su fekkee ni numéro électeur bi benn la ah d'accord numéro carte électeur numéro NIN bi benn la kon loolu erreur matérielle la loo xam ne code électoral dafa dañ ko war a corriger d'accord mais pire damay bind Fatou Thiam Ngom ni ko bindee sa carte d'identité ordinateur conséquence bi renvoyé ma ko ni ma ne da nga ciy te bi ni ma nee da nga ciy juum exactement comme ni ma ko bindee la moo koy waxee je j'espère que ton réalisateur dina ci mën a won quelques exemples ci li may wax nii muy firnde yu leer mm-hmm. donc muy mu nekk une autre source de euh, d'invalidation injuste des parrainages man loolu am naa ci mm-hmm. cent Euh, ak nangam parrainage yoo xam ni damaa bind tour bi normal ñu renvoyé ma ko na ma ko bindee ni ma dangaa juum ci tour bi te lañ lay renvoyé ak la ma bind c'est exact exactement la même chose am na ci yeneen yoo xam ne xañ na juum naa. am na yu ñuy def ay espace nee au lieu benn espace ñu defal ñu ñaari espace voilà donc loolu mu nekk un autre aspect bu ñu bu ñu bu nekk euh, lu doy waar ci parrainage mm. un troisième aspect bu doy waar ci parrainage bi donc nekk li mooy li ñuy wax ay région entière ba ngay déposer sa parrainage dañu ne yow déposer nga sur les quatorze régions et la diaspora hmm. bu ñu lay contrôler ñun benn région bi gisatuñ ko réer na kooku ku mel ni soxna Aminata Touré am na lu am na lu mu ci leeral dix mille parrainages yi mu naan Macky Sall daf koo luubal man am naa ci quatre cent parrainages yoo xam ni au niveau de la diaspora dama koo déposer mi ngi ci sama euh, euh, euh, réception des parrainages sama contrôle des parrainages yi 400 yëpp dañ ko ciy dindi am na ñeneen ak ñeneen ñu am des cas pareils ku mel ni maître Ali Kane am na la même chose à Saint-Louis où 10 000 parrainages yi mu def Saint-Louis dañ ko dindi. ni ko donc xaw ñëw na fi d'ailleurs xamuñu ko donc mu nekk beneen beneen aspect un autre aspect. et aussi très très grave muy administration tere la nga am papier boo xam ni dañ ko laaj ci élection lu mel ni fiche de parrainage lu mel ni euh, le reçu de la CDC l'attestation de versement de la caution yow nga mën a prouver ni dañ laa tere nga am ko du sa coobare bopp dem nga wuti ko conseil conseil mën a constaté ni sa dossier dafa manqué xam kooku ban danger lay indi man ma nekk maire Djiddah Thiaroye Kaw bu subaa sama concurrent bi dëkk Djiddah caaree Kaw war a amee extrait de naissance am Djiddah Thiaroye Kaw man maire ma ne duma la jox du ma la jox extrait est-ce que kooku dina mën a nekk candidat maire li ci nekk mooy ni tous les maires aujourd'hui am nañu pouvoir tere ku juddu ci seen commune nga nekk candidat ndax loolu. parce que ci dossier candidature bi dañ ci laaj bi indi un extrait d'attente de moins de six mois donc extrait d'attente d'attente de moins de six mois boo ko bu la ko maire commune bañee jox ce dossier day manqué voilà la portée xam nga souvent nit ñi dañu mëne un combat ñuy gis ka nekk ci ginnaaw combat bi mais duñu gis combat bi ñuy mëne alors que c'est un combat euh, aujourd'hui sur un aspect qui menace la démocratie sénégalaise parce que n'importe qui tey mën naa tere ku mu neex doo nekkati candidat à aucune des des, des, des élections alors nous avons euh, yooyu cas yëpp dañ ko euh, souligner ci mémorandum bi ñu euh, déposé au niveau de conseil conseil au niveau de l'Union européenne donc pour waxtaan ci ak ñoom wax fa dëgg yàlla on a on a eu attentive parce que déjà la délégation de l'Union européenne était dañoo dañoo fullaaloon audience bi ñu may tey ndax bu dee audience boo xam ni juróom benn ambassadeur ña nga fa woon toog yeneen juróom-ñaari ambassadeur envoyé seen représentant mu ñëw toog la délégation di l'Union européenne elle-même mooy ne kon ñii lañ leen lañ leen doon wax soxol na leen ñor na leen déglu nañu te surtout war nañu ñoom ñi ñu jaaxlee ci mbir yi ñu leen war li leen wax te tekku ci ay firnde nag tekku ci ay firnde yu leer nañ parce que Fatou Fatou Ngom Thiam bu ma pare ne jox ma photocopie carte d'identité tey damaa génn photocopie carte d'identité boo xam ne dañ ko légaliser woon à la police mu am toutes les données électorales ñu ne ñu bii bii carte d'identité nekkul ci fichier bi kon ñu dem fa ak ay preuves yoo xam ni dañ ko tegal ci seeni ci ci seeni loxo ñu gis ni ah euh, mbir mi doy na waar ñu wax leen également nag vraiment liñ ci jublu may ni jàpp nañ ni tey tous les partenaires du Sénégal muy CEDEAO Union africaine Union européenne États-Unis société civile dañ cee war a def seen loxo léegi nii sinon du baax dañoo estimer ni neuf cent mille électeurs parce que les les différents candidats concernés bi ñu indee ku nekk lañ la ni lii gisuñu ko ci fichier électoral bi weesu na neuf cent mille électeurs kon mi mel ni tey am na neuf cent mille électeurs yu yor seen carte d'électeur yoo xam ne bu ñu àggee le vingt cinq février ñu war a voté dañ laa ne dem leen toog seen tur nekkul ci list bi nga yaakaar loolu dina dina indi jàmm ci réew mi. déedéet du indi jàmm. léegi en plus maintenant nag. en plus maintenant ñu ni leen nag ñun duñ ko bàyyi nag bu sedd. d'accord parce que fa dëgg yàlla nag ginnaaw dañu éliminer de manière injuste xam nga bu ñu éliminer de manière juste sax y a problème hmm. mën ngaa dem parrainage Diallo loolu y a aucun problème waaye bu dee tu as les preuves matérielles que Fatou Ngom Thiam mi ma parrainé carte d'identité mi ngi nii xam naa ko man par exemple suñu secrétaire national chargé de la diaspora ñu xam ko muy voté tous les tous tous les ans ñu xam bureau ba muy voté ñu bokk koñ mu am carte d'identité ñu ne ñu kii nekkul ci liste bi xam loolu c'est des injustices graves yoo xam ni ah fa dëgg yàlla aussi nit ñi dañ ko bàyyi mu jàll. moo mooy indi mooy indi jiixi jaaxa. ci le reste du processus électoral. d'accord moo indi itam ngeen gontu ca Union européenne wala xëy fa seex noo jàngatee démarche bi euh, mu mel ni gars yi peut-être.